jërë ngeen jëf mbokki internet yi taamu di seetaan seen émission whatsapp ci seen télé Teuf Connection tey jii comme ni nga ko xamee ñu dikkoon ci fas yéene indi leen seen deuxième numéro waxtaane li nga xamante ni si moo xew ci fan yi ñu génn ni ke barki démb muy élection municipale yi nga xam ni moo am ci localité yi donc si jàngat rek du ñu def lu dul vraiment euh, remercier tous les abonnés de la chaîne Teuf Connection mais aussi di sant aussi ñi nga xamante ni si à chaque fois ñu ngi woote vraiment di laajte euh, numéro bi nga xamante ni si mooy seen émission WhatsApp

jërë ngeen jëf mbokk yi abonné yi nga xam ni ngi nekk actuellement en direct ak yéen ci TikTok bi nekk si euh, en émission avec vous dans la télé Teuf Connection actuellement ñu nekk seen émission WhatsApp WhatsApp en anglais qui veut dire lan moo xew tey jii nag li xew ku ne xam na ko ñuy waxtaanee élection locale yi ñu génnee ni barki dem tey jii ñu fas yéene

partout dans le pays nous avons constaté que dans la majeure partie des mairies ñi nga xam ne ñoo nekk ci régime actuel bi ñu ëpp si ñoom dañoo perte seeni pouvoir loolu nag ñu indi woon ci benn jàngat bu global boo xam ni daf ñu faire passer à trois points Ben point bu njëkk bi c'est d'ordre euh, euh, prometteuse euh, d'ordre prometteur mu nekk loo xamante ni si ay dige la woon bi mu nekk aspect boo xam c'est la vie quotidienne des Sénégalais beneen bi nak moy espoir ñett la dige ak li ngay dund ak li ngay yaakaar Moy dige bi day teunk ci li nga wessu, instant bi li ngay dund actuellement li nga yaakaar moy li sa kanam donc aspect bobu biñ ko xolé ci li ñu weesu dañuy retourner un peu dans le passé en 2011 ñu gisoon ci ben discours bu gatt li ñu yaakaaroon ni peut-être su ñëwee dana indi changement mu dige boo xam ni ki nga xam ni aussi nekk na si njiital réew mi di ko ñaanal jàmm moom dige woon na ko muy lan li nga xamante ni si moom la waxoon Sénégal dëkk bi dafa metti ndaw ñi amuñu liggéey dund bi dafa cher donc constat boobu bi mu ko waxee ñu bëri ànd nañ ci ak moom ci yooyu jamono ci ñi xamul woon wala boog ci ñi jàpp ni loolu moo nekkoon li logique ñu rappelez un petit ci discours chers compatriotes depuis trois ans j'ai sillonné minutieusement le pays à votre rencontre pour bien écouter observer et surtout apprendre j'ai mesuré l'ampleur des souffrances des femmes prises dans les tâches quotidiennes et rencontré des familles installées dans des quartiers précaires inquiète à l'approche de l'hivernage et une jeunesse en désarroi, sans qualification ou des diplômés sans emploi. Notre cher Sénégal va mal, très mal. Il est traversé par d'innombrables fractures. donc le mooy kàddu yi nga Khamni, ni jotoon candidat bi nga xam ni ci te yàlla def mu nekk ci boppal réew mi ah biñ ko xoolee nag askan bi yaakaar lañu amoon ba tax ci seen coalition boobu ñu tuddee ko baat boobu yaakaar jooju nag bi ñu dikkee ba ci local yi dafa mel ni ki ci ñenn ñi dafa firiku si ñoom ndaxte bi ñu xoolee ci dëkk yu bari ñu ngi félicité eh, donc ñenn ci opposition bi ñi nga xam ni gagné nañu ay gox goxaat yu bari di félicité aussi parti au pouvoir ci ñi nga xam ne no nañoo gagné ci seen gox aussi di xamné rek peut-être Sénégal moo tëddee non mais analyse biñ ci am moy biñu ñu accès ba ci 2022 mille vingt deux lu ñuy jàngee ci histoire li ñu passé lan lañu ñu diggoon dund gi dana wàññiku lan lañu ñu ndaw ñi dañu am xey lan lañu ñu diggoon jigéen ñi dana leen jàppale ba seen coono yi mën a wàññeeku. kon loolu mooy li nga xam ni ci tënk jot nañ ko ci jàppee de façon général li sénégal yi di dund aspect boo xam ni mën nga ci dut baalam loolu mooy li gën a mooy ndaw ñi nañu am liggéey bokk na ci promesse bi ñu defoon ñaareel bi mooy dund gi dafa cher surtout ci jamono yooyu dañoo waxoon ni dund gi dafa cher nañ ko wàññi beneen bi ni tam mooy jigéen ñi nañ leen dimbali ba seen coono mën a wàññiku ba ñu mën a am vraiment espoir ci seen avenir en le 23 janvier 2012 Là, lañ seetlu promesse indi par ben, nous avons ni jeunesse bi amuñu liée. il faut que nous apportions une solution sénégalais ont constaté est-ce que jeunesse bi am une solution oui ou pas c'est à vous de juger mais ce que nous avons constaté si que si jamais avons une satisfaction peut-être résultat le résultat des métiers de demee pareil, yu bare bare ci bu ñu dellusee ci point boobu ñu dikkaat ci li nga xamante ni si mooy euh, promesse bi jëmoon ci wàllu dund gi dund gi dañu wax nii ci yooyu jamono boo doon xool buñ jëloon diwliñ bu doon ni da nga lu daan jar seize mille léegi dem na ba vingt deux mille mburu mi daan jar fanweer léegi dem na ba deux cent ci yenn gox yi kon da gis ni lañu dige woon ak li am réalité yi bokkul dañu waxoon ne suñ ñëwee dinañ wàññi dund gi ah tel n'est pas le cas da gis nañu dund gi dafa gëna cher kon constat bobu su ko population bi defee dinañ xam ni kon ah suñu defee jangat kon satisfaction amul kon yaakar bu tass mo nek fofu yaakar bu tas tewé wessu sentu dara ñew gis safaan bi liñ doon sentu nak mooy dund go xamni vraiment da fay woyef ci askan bi askan bo xamni ni ñu aussi suñu jugé dem marché mën fa fekk jël gis ni jël dafa jafé légui lutax xam nañ ni am na ñu ñu jox licence ñuy napp géej gi te loolu day impacté ci bii vie quotidienne sénégalais yi quantité jën ba nu waroon a am marché bi bu nu fa demee wax dëgg yàlla ñooñu jox lissance napp nañ jën yi ëpp doole wala yi ci ëpp jël nañ ko yóbbu ci réew yi léegi nag sénégalais yi dañuy jàngat sénégalais yi dañuy xalaat sénégalais yi nelawatuñu ki nga xamante ni sii daf laa joxoon sa réew wala daf laa joxoon kàddoon pour nga jiite ko ci réew mi promesse yi nga joxe woon mooy wax ni kat dinaa fexe ba dund gi yomb dinaa fexe ba ndaw ñu am liggéey dinaa fexe ba euh, jigéen ñi ñu jàppale leen ci point boobu moom loolu lañ ci am luñ ci doon leeral waaye day dikkaat ba tey ci ñàkk am satisfaction ci promesse yu dundi doomu aadama yi ci biir loolu dañuy dikkaat ci li nga xam ni mooy la montée bi ñuy wax ci côté développement mais aussi dañoo war a xamaat ne émergence dafa am moy émergence des prix prix yi no yek lepp yokk lolu nek na lu metti ci sénégalais dem nañ ba ñu sénégalais vraiment vraiment mënatuñ ko supporter kon fofu yaakaar bu tass feñ na fa raison pour laquelle aussi ñuy xamalat ni il faut que ceux qui sont actuellement euh, au régime pour conduire la politique euh, euh, nationale de ce pays ñu xoolaat askan bi gën a dellusiwaat ci ñoom gën a xoolaat li nga xamante ni si aussi diggoon nañu ko te peut-être askan bi xëñ na amu ci satisfaction loolu cause la ci li nga xam ni feeñ na ci réellement élection locale yi ñu nekk ak yi ñuy génne te vraiment mën na amaat impact ci élection yi nga xamante ni si aussi moo nekk ci suñu kanam. Krishna.